nii xëy na bëriwul lu ñu koy gis un président de la république euh, jël décision wàcc ci ab bërëb ngir saytu li nga xamante moom moo di doxalin bi euh, ñu gis le président def ko démb foofu la ci ci mbuurkaat euh, ñu xam ne mbuurkaat coow li yàgg na fa am par rapport ak litige yi nga xamante ni mu fa doon am ci coow li yu mel ak ay hectares de terrain yoo xamante ni jaay nañ ko tey acte boobu nga xam ne président de la république def na ko yow nga bokk ci biir coalition bi ban gis-gis nga ci am. dañu koy rafetlu dañu koy rafetlu parce que c'est un acte très fort mm-hmm. un acte à la limite exceptionnel mm-hmm. à l'endroit du foncier euh, sénégalais mm-hmm. parce que itam dafa bokk ci loo xam ne euh, ci promesse de camp de campagne yi la bokkoon li nga xam ne waxante nañ ko ak sénégalais yi que ni bu ñu ñëwee euh, suufu Sénégal danañ ko fexe ba euh, lépp ñu réglementé ko ku ci war a jotee itam nga ci jote ci yoon et ñu xool euh, ñi nga xamante ne ñoom la ko doon octroyé mm-hmm. ci yan condition la leen ko joxee ak euh, lan la ci euh, loi bi prévoir mm-hmm. donc daal acte bu fort la wane na ni président la république sacerdoce la mm-hmm. wante wane na itam nii foncier bi lu ko ñor la parce que bëri woon na ay yoo xamante daan na fi xew ci nguur gi nga xam ne moo fi passé ci lu jëm ci wàllu foncier bi baax na bu ñu ñëwee fépp xam ne am na litige am na ay problème ñu taxaw ci vérifier ko càmbar ko wax sénégalais lan moo ci am. Mhm. defe naa ne c'est un acte bu fort acte bu bu am solo la. Mhm. boo xam ne président de la république posé na ko. Mhm. ñu gis ne ci ak volonté la ci ànd parce que démb bu muy expliquer di di wax euh, mu ngi dem ba naan euh, c'est c'est illégal c'est anormal euh, lu toll ci hectares yu toll noonu ñu koy jox des des des citoyens sénégalais tey ñenn ñi di ko tudd ci li nga xamante ni moom mooy suuf suuf la nekk foofu la ci diwaan bu Mbour parce que moom en tant que président de la république bénéficié wu na ci lu toll ci. ci 4,3 hectares yoo xamante ni moom en personne en tant que président bi moo ko moom ci fi nga xamante moo di commune bu Sandiara bi nga xamante nii euh, tey ki nekk ministre euh, de l'industrie ak di commerce moom moo ko jiite woon euh, tey est-ce que du am peut-être benn réeróo boo xamante ni am na ci ak décision yi nga xamante ni bëgg na ko jël foofu la. non alaakuli àll décision moom moom fa dina am ñu mu neex am ñu a naqari. li am solo rek c'est de rétablir la vérité. Mm-hmm. et puis euh, privilégier l'intérêt sénégalais mm-hmm. chance la aussi ñu am président la boo xamante ne mm-hmm. lu jëm ci wàllu foncier wàllu domaine mm-hmm. lu mu xam la parce que il est inspecteur des impôts euh, xëy na chance pour ñi nga xamante ne seen problème yëpp ci wàllu foncier la te defe naa loolu dafa yàgg même président la République bi bi fi jógee le président Macky Sall bokkoon na ci lu mu mës a wax mu ne renseignement yi muy jot li ci doon ay litige foncier moo ëpp donc jàpp naa daal lu am solo la mu taxaw ñu seetlu ko def suufu Sénégal nag euh, pasar pasar pasare woon nañ ko ñi nga xam ne ñoo daan ne ci nguur gi soo leen dégloo jamono yi bu ñuy wax ci suuf si da xam ni wax dëgg yàlla pratique yu yu indécente euh, pratique yu douloureuse lañ daan def ci suufu Sénégal. mais mais mais jàppoo ne moom en tant président de la République moom moo war a joxe tey le bon exemple peut-être en se en se retirant par rapport ak ces hectares yi nga xamante ni am na foofu les Sandiara pour mën a teg yoo xamante ni sénégalais danañ ko mën a apprécier. waaw loolu loolu moom ay commentaires la rek. parce que tey ñu en tout cas man ko këyit goo xam ne day firndeel ni président de la république am na foofu suuf. mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci déclaration de patrimoine déclaration patrimoine c'est bien noté que le président de la république am na 4 virgule 3 ci commune bu Sandiara loolu. mu ngi ci déclaration patrimoine xam nga à à préciser mhm. euh, nga am assiette foncière ci Sénégal. Mhm. nekkul y'a du problème. Mhm. Euh, c'est pas un crime ku mu ne am nga droit dans dans les règles de l'art nga dem jënd suuf. su fekkente ne am nga loo ko jënde et puis nga dem def sa projet wala nga dëkk kooku ma werante amu ci mais man bon gisaguma d'abord këyit googu ngay wane ni wante am naa yaakaar ni comme wax nga ko dëgg la mais même su amee tamit am nañ jot ne ah, dafa jaar fi mu war a jaar parce que président la République boo xamante ne li tax sénégalais yi ko teg ko fi mooy xam nañ ñu ne su ko boppam rek ñoroon kon tey du agsi fi mu agsi defe naa ne am na lu gënoon a yomb foofu fi mu jaar bu egsi defe naa ne kooku du nit kuy jël suuf pour di ko moomale boppam wala nangam ak nàngam de toute façon li ci am solo mooy su nekkente ne suuf la soo xamante ne am na litige même moom bu ko jëndee dans les règles ak ni ma ko xamee dina ko jël mu jébalaat ko population Sénégal kooku moo xam naa ko mais li am solo daal mooy euh, fépp foo xam ne am na litige ñu réglementé ko et puis ñu waxtaan ak acteurs yi ku ci ñu xool li nga xamante ne moo moom nga ci moom ñu delloo ko li nga xam ne sénégalais ko moo ay domaine public la tamit ñu ko pour ay projets yoo xamante ne c'est des projets structurants yoo xamante ne dina mën a jëmale sénégalais yi kanam ñu wax addu ci li nga xamante moom moo di rapport yi nga xamante ni également euh, ça fait débat ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy landermu politique bi euh, notamment rapport li euh, nga xamante ni moom mooy rapport OFNAC yi gisoon nañu génnoon na ci jamono bi ñu weesu rapport deux ak 2023 ki démb également euh, les rapport de de des cours de compte euh, am na ci yoo xamante ni jot na jot na génn ñu gis ne épinglé na ci euh, des dirigeants yi nga xamante ni ñu ngi fi nekkoon de ministres des DG yoo xamante ni également tudd nañ leen ci. Euh, ñu gis ne dem nañ ba tudd ci sax peut-être ñenn ñoo xamante ni xëy na tey ñu ci biir biir régime bi euh, jàpp nga ne euh, réduction compte boobu dafa war a am jàpp nga ne également justice dafa war a dem jusqu'au de sa de sa logique par rapport à ces rapports de compte là. loolu mooy dëgg réduction des comptes dafa war am bokk na ci cinq points yi nga xamante ne le premier ministre keroog bi ñuy def étalage gouvernemental bi. wane na yoon wi nga xamante ne bokk na ci point yi nga xam ne moo moo moo gàlloo ci notre gouvernement bi bu ñuy wax réduction des comptes mooy képp koo xam ne jot nga gérer te fatal ay nekk ci àllul Sénégal ñu càmbar ko xool la nga fa liggéey bi ñu jox du ñu joxe ak bi ngay dem la nga fa bàyyi. kooku ne defe naa ne du du du principe boo xamante ne lu personnel la principe général la moo xam ku ànd ak ñun tey ku ànd ak ñun démb. wala képp koo xam ne mës nga gérer dara ci Sénégal dañoo war a évaluer def ay audit defe naa ni euh, ñi nga xam ne rapport yi xam ne publier nañ ko mooy ñi nga xam ne peut-être dem nañ ci ay taxaw seetlu mais yi ci des dinañ def audit yi après rapport yi ni ko publier pour que bu ëllëgee procédure judiciaire bu ci am boo xam ne procureur war na ko def wala euh, le ministre de la justice ñu xam ni euh, du affaire de parparloo mais affaire de affaire de transparence la mmh. affaire de sàmm alalu Sénégal la affaire de tenir sa kàddu bi xam ne wax nañ ko ak sénégalais yi ba ñu jox ñu 54 pour cent yoo xam ne urgence la pour ñu mën a taxaw ci problème sénégalais yi. Euh, wax nga ko du bu mbañ a am benn par rapport la boo xam ne daf ci am euh, parce souvent li ñuy gis ci rapport yooyu bu bu bu génnee ñi nga xamante ni dañu fare en général ak euh, li nga xamante ni moom moo di le pouvoir en place souvent du am poursuite bi nga xamante ni moom moo ci war a am wala suivi bi nga xamante ni war na ci am ba procureur autosaisir wu ba mi ci yoon souvent du ci am est-ce que jàpp xamante ni moom la ñuy di ci ci ci nouveau gouvernement bi. am na am naa ci yaakaar euh, ne rapport yi bépp déjà bon su nekkoon ne xëy na affaire de par par loolu xëy na am na rapport yoo xam ne peut-être duñ ci duñ ci duñ ci jotee wala duñ ci teg loxo. Mm-hmm. parce que mm-hmm, gouvernement boo ko yoree yore état. Mm-hmm. Mm, possibilité yi am léeg-léeg dafay bari. daan nañ gis ay rapport yoo xam ne président bi fi nekkoon daan na wax ne ne daan na ci teg concam. wante comme tey tàmbali nañoo gis ay rapports yoo xam ne peut-être am na dafa concerné ñoo xam ne peut ñoo ne ñu ngi à l'intérieur tey de ce pouvoir là de ce nouveau pouvoir kon cela veut kon amul amul amul amul amul xaj ak seen euh, li am mooy euh, principe de transparence la équité la égalité la ñu ñëpp ci kanamu yoon mooy li am solo rapport yëpp dinañ ko publier suñ ko publier dinañ xool ñi nga xam ne ñoom la concerné ak nga foo mën a bokk yoon dina def liggéeyam li mu war a def mhm. loolu moom laa gëm te loolu mooy suñu responsabilité mhm. parce que loolu la ñu jaay sénégalais yi ba sénégalais yi fal ñu mhm. euh, te tey lan ngay wax également ces ces yi nga xamante ni commencé nañu euh, di di tuumal ñenn ñi di leen di leen wooye di leen dem bay ay ay sàcc lañ ak yu ni mel te ñu mën a leen a euh, nangul présomption d'innocence jusqu'à ce que yoon def liggéeyam par rapport ak li nga xamante moom mooy ces ces rapports est-ce que jàppoonte ne teel na que ñu wax ne diw moom moo moo def wala diw deful euh, tant que li nga xamante ni moom moo di justice demut euh, jusqu'au bout de sa de sa logique. xam nga Sénégal moom li mu bindoo euh, politique bi léeg-léeg dafay xumb ba nga xam a commentaire da ci am yoo xam ne ay commentaire politique la wante soo nekkee un homme politique un homme responsable am na kàddu yoo xam ne bu ñu ko jógee teg teg sa kaw su nekkee ni tu te senti diffamé war nga dem devant la loi nga nga nga nga porter plainte wala nga def li nga xam ne yoon moom moom moom moo la ko may mais da ci am yoo xam ne ay commentaire politique la ah, defe naa ni nit moom kenn ko jiiñee ci ci ci presse wala kenn ko atee ci presse mais politique mooy mooy mooy def loolu souvent nit ñi dañuy def ay ay ay ay ay ay ay télescopage yoo xam ne c'est personnel et souvent je suis d'accord mun na ñàkk li am solo rek mooy état bi jël ay ay ay responsabilités am ñi mu war a traduire devant la justice mu mu yóbbu leen et puis ñu justifier ci kanamu yoon su nekkente ni prouvé nañ ci kanam yoon ne mm, ils sont blancs comme neige yoon dina def liggéey parce que dañoo wax ni euh, cette fois ci bëgg na justice Sénégal moomaat boppam bëgg nañ li fi amul woon li fi amoon bu njëkk dootu amati maanaam ñi nga xamante ne ñoo gàlloo nguur lu ñu def baax na waaye ñi nga xamante ne tey nekkuñu ci ci ci ci pouvoir bi lépp loo xamante ne lu ñu def teg nañ ci kaso bi loolu mooy pratique yi fi amoon moo tax ñun dañoo bëgg loolu changer moo tax am responsabilité ministre de la justice fi nekk mi nga xam ni àttekat euh, la te bëri na ministre de la justice yu daan am yoo xam ne ñi ay procureur la ñuy doon ñi leneen la ñuy doon mais tey am nañ ko xamante il est un juge d'abord àttekat la defe naa ne am na yenn pratique malsaine yoo xam ne du ko accepté ñu koy def ci biir ci biir parquet bi donc li am solo mooy yooyu yëpp euh, waxu commentaire la mais ku mu ne am nga responsabilité bu la déranger nga dem nga dem nga dem ci kanamu yoon waaw loolu moom du du du dara ci Sénégal daal. dina dina maa ngi ñëwaat si léegi di nuyu suñu chroniqueur euh, mi nga xamante moom la ñu saa suñ nekk Cheikh maa lay ziar di la nuyu ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk internet ak suñu invité Yaya Yaya Sall. <laughs> di nuyu internet yi nga xam ñu ngi seetaan donc euh, voilà euh, di jégalu si voilà tardé <coughs> voilà ñu ñu ñu ñu ñu doree ak fi ma euh, commencé woon ak yaayaar léegi par rapport ak li nga xamante ni moo di descente bi nga xamante ni président de la république def na ko démb ci ci Mbourkat par rapport ak lu jëm ci li nga xamante moom mooy wàllu foncier bu ko wax mbuur Mbourkat xam ne ne bëri woon na ay coow ci ay jamono ci li nga